jamono jii nii euh, politique gu géejawaay. Mhm. dans sa globalité. que ni euh, ñi nga xamante ni ñu ngi si miir yi fa ñu fal leen surtout waa yeewi askan bi. Mhm. nga ne euh, ñi nga xamante ni ñun ñooy waa Pastef fi ñu nekkee maire ñun dañu jël affaire bi. Mhm. def ko yëfu Pastef maanaam Pastef. def ko yëfu Pastef quoi maanaam boo bokkul Pastef duñ la dugal seen instance yi duñ la dugal seen bureau yi yooyu noonu quoi donc loolu noonu lan moo la may gis-gis boobu noonu. waa sànq maa koy wax. que ni mbir mi dafa xaw a parce que tamit waa Pastef bu ñuy bañ ñu tudd leen à chaque fois aussi comme ni Yade wax waxee sànq bu ñuy bañ su ñu waxee ñu ne non dangaa far fii wala dangaa far faa parce que actuellement ñoom ñoo yore mairie bi donc dañu mairie rek lañu am man en tant que euh, euh, doomu gox fii nii ci euh, Guédiawaye Golf Sud précisément je pas parler au-delà lu dul sama mairie bi fii rek laa am comprends nga su ma nekkee di wax instance la xew pare wala instance la xew en tout cas ville kon ma néew ma di wax lu ma wóor donc je pense que nu suñu idée yi lépp ak suñuy euh, peut-être information yëpp su suñu gox lañ ko mën a amee fii de muy mairie bi donc mairie bi ku ko yor euh, Khadija Maye ko le maire Pastef donc ñun ñu am génn benn gis-gis benn jàngat bu ñu ci am mooy que ni comme ni nga ko waxee sànq instance boo gis ñu créé ko fii boo demee bureau yi poste ci gën important yi nga xamante ne nii maanaam boo ci bokkee di dina di nga gis benn di nga am toutes les informations et y aura beaucoup de transparence yow dangay gis que ni su fekkee bokkoo biir Pastef rek doo si bokk dafa am benn limite buñ ci dafa am benn en tout cas benn euh, dafa restreint quoi de ce fait loolu noonu moo waral ma wax ko parce que dama si am preuve parce que comme comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek étant jeune nga nekk ci gox da war a mën a participer danga war a mën a active donc active la koy dañ koy def seulement parce que euh, maanaam ñoom tey jii xaw ma lu tax ñu def ko mais en tout cas liñ ci jublu mooy que manque de transparence ñëw si yeewi askan beeg yooyu wala ñu fa fekk. waaw parce que politique politique bi ñuy bi ñuy bi ñuy exercer la ici au Sénégal politique bi ñuy exercer pour ñoom euh, boo faru si boo newul ci farfarloo bi rek yow daal dañ la war a seppi comme teeñ maanaam ñoom li ñuy wax nii ñoom ay patriote lañ man gisatuma loolu gisuma ko dunduñu ko parce que patriote mooy koo xamante ne waroo mën a ràññee kii fii kii fële kii fële da lépp sa lépp dafa war a transparent waroo ragal dara parce que boo nee patriote nga tey jii na keneen far ca jaabul ba wala keneen far ca ajak jak yow xam nga ni bu la leeree ni li ngay def leer na naaññi dina am transparent ragal ku ci mënti bokk da nga koy xajal mu ñëw parce que li ngay li ngay li ngay def nëbboo ko am na lumière bu totale mais seulement peut-être ñoom li ñuy def peut-être euh, nëbbatu na amul lumière dañuy njuuñ wax voilà en grosso modo donc ñu ngi def comme politique d'habitude bi nga xam ne Sénégal moom lañ xam donc il y a aucun changement on a subi aucun changement ni à Guédiawaye ni je ni j'aurais dit ni euh, partout actuellement fii nii man man man je confirme au fait parce que man je l'ai j'ai pris ma responsabilité de dire honnêtement et je me posais la question est-ce que réellement euh, mairie mairie mairie golf est-ce qu'on doit dire mairie golf ou mairie de de Pastef au fait et vous savez gis nga dafa am loo xam ne nii su nekkee da nga woo doomu aadama yi ba nu wuyu si la je pense que da nga war a doxalee noonu. et je vous donne un exemple dama lay lire benn publication boo xam ne kenn si ñoom ñoo ko def ñu ne une formation est offerte par madame le maire de Golf Sud Khadija Mayokor Diouf sur le leadership transformationnel aux jeunes de Guédiawaye le dimanche 30 octobre 2022 à partir de 9h à la mairie de Golf Sud et là on dit confirmez votre participation mais gis nga rencontre bi qu'est-ce que c'est passé doon animer cette formation la il est de Pastef mm-hmm. et la plupart des jeunes vraiment qui doon participer si formation bi ce sont des jeunes de Pastef maanaam amul kenn ko si daal man amul kenn ku ma si xam koo xam ne da nga bokk APR wala nga bokk MEX si je peux l'appeler ainsi mm-hmm. wala nga bokk grand parti wala nga bokk beneen parti donc pour man li déjà à mon avis c'est une publication mensongère parce que ça c'est pas la vérité cette formation là joxuñu ko ndaw géejuwaay bi yëpp. mais dafa am yenn ndaw yu ñu ko jox. donc lii ñun la ñuy déplorer et sànq wax naa ci affaire yu tabaski bi ak aide Korité bi mais c' est comme ça la plupart des gens qui sont de passif mm. ñu bëri jot na environ soixante onze mille francs CFA. Mm. c' est là où je parle effectivement de détournement par contre am na ñoo xam ne dañ leen jox xaalis ba pare par exemple ñu jox la benn cinquante mille retourner ci ginnaaw. jox la si vingt mille francs trente mille ñu séddale ko ñeneen mais loolu su su nekkul détournement lan la tudd et ce que la dit là je l'ai dénoncé j'ai mis ça sur ma page Facebook donc pour vous dire que su nekkee yow dangay ngay wootee sangaay nu ñu koy waxee ah dafay voilà dafay fekk yow nga set et je man en tout cas ces gens là man jàpp naa ne effectivement lu ñu doon woote du dëgg te jàpp naa ne ces gens là en tout cas s'ils ne changent pas ils ne vont jamais développer cette commune-là. donc c'est c'est malheureux. et aujourd'hui effectivement lu ma doon déplorer démb ak barki démb moom la gis sa veut dire que y a une gestion partisane non gis. gisuma gisuma un grand changement pas nous dire dans les commentaires. que ni waa waa APR aussi noonu lañ doon def waa APR même su fekkee noonu. on les a sanctionnés on les a sanctionnés. donc ñoom ñoo war a voilà ñoom ñoo war a ñëw. vraiment changement dañuy xaar quoi gisagul c' est une c' est une continuité en fait. voilà c' est une continuité malheureusement. et et dans le sens euh, négatif. toujours dans le sens vraiment négatif. léegi beneen question bi mooy yaatu woon sànq da nga ne euh, ñi nga xamante ni tey jii nii euh, ñoom ñooy yeewi askan bi dañoo gagné mairie yi si ba yi si ëpp. Mhm. mais fii si fii si Guédiawaye ñi nga xam ne ñoom lañ dénk mairie yi dañoo def focus 2024 maanaam taluñu liggéey mais dañoo tal maanaam pour jéem a fal seen leader pour euh, présidentielle 2024. mais mais Gris loolu bu ma koy wax du léegi ne woon naa ne avant avant ñuy dugg si élection yi. bu ñu nekk si campagne bi. Hmm. j'avais dit su ñu jëlee mairie bi ñu teg ko si loxo politicien de manière générale à l'époque gëw ne mu mu mu mu mu liggéey lan moo tax parce que dañuy dañuy dem si élection présidentielle kooku ñu fay teg. jàpp naa ne si ci biti lay nekk wala mu xool naka lay def pour fal leader am loolu loolu mooy pexem mais quant à mu taxawu population bi góoma loolu et c'est la quand je disais ça je pense que ça fait plus de six mois et aujourd'hui c'est ce que nous avons constaté tey la plupart des gens boo leen xoolee tey ñoo ngi def ay tournée di def ay massification di def ay proximité et et ce que loolu moo taxoon est-ce que loolu moo taxoon mais ñoo ngi dund si jafe-jafe ñoo ngi dund si jafe donc ñooñu pour man ñooñu. askan bi pour l'instant nii. Mhm. intéressé wu leen de xam lu leen intéressé. Mhm. naka la ñuy def pour fal effectivement seen candidat. xamaan peut-être après ils vont ils vont re revenir pour. Euh, pour soutenir la population pour Yade Wade et pour même ñi ñuy seetaan. waaw mooy que ne je que euh, ñun euh, Sénégal comprendre nañ ce que ça veut dire euh, élection locale. non xam nga bon merci beaucoup magget posé nga question bu am solo gis nga élection locale. élection locale pour man dañ ko war a jox koo xam ne nii si gox bi la dëkk xam gox bi te soxlawul dara gox bi. peu importe mun nga bañ a nekk politicien vous êtes pas obligé d' être un politicien politicien mën nga bañ a nekk tu peux être yow soxla li soxla si yow mooy tuuti waay sénégalaise. bi nga xamante ne maanaam citoyen quoi. voilà c'est ça bu ko defee yow nga participer activement. au développement de cette localité local. waaw mais malheureusement ki nga xam ne moo tal gox bi. waaw mais aussi gis nga su nekkee mu mënul naxante ah su nekkee yow gis nga sunu sunu mairie nu muy fonctionner nga jël koo xam ne ne effectivement amul moyen nga jox ko mairie saa yi loolu yaa teg sa bopp. nga gis nga mairie da koy jox. comme nu mu ko euh, c'est ça en fait c'est-à-dire partenaires. parce que effectivement le budget de la mairie de Golf Sud un exemple. voilà mënul développer Golf xam tax. parce que quatre-vingt pour cent au budget bi dafa dem ci fonctionnement. donc ça veut dire que environ vingt pour cent kese moo dem ci investissement. maire boobu bu fa nekkee vingt ans golf du bouger donc gis nga pour man foofu la ñu au fait foofu la ñu juumee au fait noonu laa ko mën a waxee c'est-à-dire aujourd'hui dañoo fal xamante ne amuñu relation. mais c'est ça la vérité je suis gis nga maire da nga koy jox koo xam ne vraiment soxlawul sa dërëm un. soxlul salaire u mairie bi deux soxlul darawu mairie bi mais dafa nekk koo xam ne dafa war a am benn ouverture am ay relation pour développer pour développer euh, cette localité là mais une bonne soxlawul mairie bi soxlawul bi ce discours là a été tenu pendant même les campagnes euh, mais c'est malheureux mais pourtant gars yi dégguñu ko mais c'est malheureux li tubaab bi di wax naan il y a pas plus aveugle que celui qui ne va pas voir voilà c'est dommage actuellement moo tax sànq maa ngi koy wax ñëpp dafa garaaw actuellement loolu moo dal gox bii nii Guédiawaye ak Golf Sud ñi fi nekk dañu ñëpp dafa am lu. loo xam bëgguñu bëgguñu bëgguñu faire face à leurs erreurs. waaw mais dafa am aussi beneen aspect boo xam ne pour man mm. ñooñu bu ñu ñëgee jëbuñu jëbu ñëkk xam ma maa la koy wax sànq. Mm. quelqu'un comme Aliou Sall c'est un bon maire il fut un bon maire. Mm. mais il est jàpp naa ne man il était très mal entouré. keneen bu nu jëlee quelque comme madame ay Sow Diawara man jàppoon naa maire la leader la am na xam-xam mais ñu ko wër man comme nu ma ko doon faral di waxee. yematuñu woon si dóor mais dañ doon xët man jàpp naa ne ñoo ñu bokk na effectivement si ñu leen yàkkal malheureusement ñu nu jàppoon ne bu ñu ñëwoon changement dina am jàpp naa ne ñoo ñoo gën a piir sax ñu fi nekkoon. jaajëf sama gars yi yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo te li ngeen waxtaan am na solo ba euh, côté boobu noonu euh, gis naa ne euh, li ngeen wax comme tey jii maire fu mu am relation. faut mu am euh, li nga xamante ni moom mooy maanaam ay connaissance il faut mu am ay maanaam porox ndoll yi nga xamante ni dina si mën a euh, xëcc pour mën a jàppale li nga xamante moom mooy maanaam budget bi pour mën a doxal commune bi wala département bi est-ce que nekk loolu moo freiné Euh, euh, maire yi nga xamante ne fan leen fi waaye yeewi askan bi euh, parce que bi ñuy leen di fal tamit bu ñu fàtte nekk ni population bi dañoo ñëwoon dañoo meroon bëggoon fi jógee jëlee waa APR rek rien rek pour indi ñooñu noonu pour xool ma xam ne duñ mun mais mais mhm. ñàkk connaissance bu wala ñàkk relation yi moo tax mu freiné que sànq li nga wax maanaam dañoo def focus 2024 waaw mais gis nga parmi ces parmi les maires là am na ñoo xam ne tey bon prouvé nañ honnêtement bon je peux donner l' exemple de Ousmane Sonko à Ziguinchor moom dafa renoncer salaire salaire am 900 millions daf ko renoncer du carburant du dara loo xam ne daf koy jël ci mairie bi boo xoolee budget bi 80 pour cent ci fonctionnement la woon comme presque toutes les maires du du, du Sénégal mais boo xoolee boo xoolee tey aujourd'hui moom euh, budget de d'investissement moom moo ngi ci 60 pour cent léegi budget fonctionnement moo ngi ci 40 pour cent donc moom il a compris mais est que moom lu muy doxalee la ñu leen di doxalee loolu il faut aussi nga am benn vision mais aussi il faut nga. pare pour liggéeyal askan wi loolu la ñu gisul géejuwaay voilà euh, Maguette loo soog foofu loo soog ko moom la place la ñi nga xamante tey jii am ko est moo tax loolu moo freiné seen i ba nga xamante mënuñu doxam que ñu naan relation yi ñu war a am amuñu ko pour man euh, du relation parce que ku mel ni Ahmed Aïdara ah. je pense que ces relations lui ont permis de de de, euh, place bi nga xamante ne mooy être maire au à ki nga xam ne aussi mooy Mayakor je pense que aussi euh, peut-être mën naa wax moom que ni révolte gox bi sans pour autant ñu xam conséquence yi ci après yi yi ci aboutir. moo war a tey peut-être mu nekk maire donc pour man même su fekkee ni bëgg nañ am relation je pense que les relations même su fekkee ne actuellement on l'a pas. en poche ça peut à tout moment. Mm-hmm. comme ni ma ni ma la waxee tout à l'heure ça on peut avoir l'esprit de dépassement toog a waxtaanal ñi nga xam ne ñoom nga war a waxtaan waxtaanal nga liggéey euh, pour gox bi mais su fekkee ne tey da nga jiital li nga xam ne mooy say ambition maanaam je suis positionné sur Pastef donc ak ak un de fierté ak aussi peut-être je fou fous de la population parce que am na benn instant yenn comportement yoo xamante ne lool lay wane je m'en fous la population actuellement mi ngi def ay ay li a def mi ngi tabax mi ngi toj mairéem mi ngi defar. ngi créer ay instance mi ngi jox ñi nga xamante ñoom la war a jox ñoom la bëgg a jox dimbali euh, li nga xam ne moom mooy ay Coritec subvention et donc xoolul après li ko population bi di waxal donc kooku noonu je pense que ce n'est pas manque de relation moo ko freiné pour man euh, dafa am ci lu mu visé fu mu focus fuñ ko ndigal fuñ ko teg ndigal mu nekk ci fa nekk yàgg woon yaa ngi wax sànq ci Sonko xëy na après je pense que que ni Sonko même il a intérêt à à et même su fekkee ni sax <laughs> il est en train de travailler actuellement nii euh, euh, travaillam boobu mi ngi li ma ci doon njortu en fait mi ngi bëgg mi ngi bëgg a firndeel maanaam peut-être au début euh, départu gaynde li ñuy wax départu gaynde pour prouver quelque chose ak Ziguinchor mais au fond est-ce que il le fait à cœur est-ce que il le fait mais genre avec avec euh, euh l'amour de cette population là est-ce qu'il ne fait est-ce qu'il ne fait juste pas par par juste une par juste une une euh, maanaam pour se pour pour se donner une, une image wala pour en tout cas voilà pour focus sur surtout pour focus 2024. parce que su fekkoon loolu la tey jii ñooñam yi nga xamante ne ñoo nekk sous sous sous région yi waxuma naa région yi. ci yeneen gox yi war nañ war a mun a rew ci parce que même instance la. Mhm. même instance donc su fekkee sa leader day defee ne yow ngay defee nii parce que y on on comprend. c'est c'est vrai ban c'est bon en fait. y a euh, en fait. vous avez fait une belle remarque et c'est important et je pense que aussi su nekkee yow da am benn leader. mu am lu muy incarné am nu muy doxalee. man jàpp naa ne noonu nga war a doxalee. c'est la logique. et mais aussi ah man man bokk naa ñu gëm ne au niveau de de la de co de la coalition. yeewu à l'époque à l'époque euh, mhm. y avait pas la démocratie. parce que su nekkoon dunoo doxaloon démocratie à l'époque ici à Golf Sud nekkul Mayakor moo waroon nekk tête de mhm. donc y avait quelqu'un d'autre mais moom elle en dernier moment. Mhm. ñu imposer ko si ce qui s'est passé. donc su nekkee dañuy gis genre genre genre comportement yooyu te yow amagoo nguur est-ce que boo ko jotee aussi arrogance bu ñuy wax tey ce qui se passe est-ce que yow doo doo sut gars yi donc loolu yëpp c'est une interrogation yoo xam ne uh-huh. je pense que war nañ si bàyyi xel gën ko càmbar uh-huh. voilà euh, c'est ce que je voudrais dire ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk parti au pouvoir ñi nga xamante tey ñoom ñoo nekk parti au pouvoir euh, Macky Sall ak ay nitam uh-huh. tey ñoom tamit tey ñoo yor nguur gi ñoo pouvoir donc tey est-ce que ñoom euh, biir Guédiawaye ak biir Golf nañ mën a seetaan maire yi nii rek seetaan leen bàyyi leen jaxase leen ak population non bon euh, pas jaxase ah man man gisewu ma noonu giri ah. parce que su nekkee maa yow dañuy xëccoo. maanaam pour nga jaxase ma maanaam a fal nii dañ leen di seetaan ak ñoom. waaw fu ñu leen war a appuyer ñun duñ leen fa appuyer. xam nga lan moo tax. voilà voilà c'est-à-dire gis nga ñoom seen taxawaay xam lan la waroon nekk. Mm-hmm. ñu ñëw jàppale ñu ñu dem. mais gis nga politique nu ñu koy defee Sénégal. moo salte mm. maanaam gars yi ay xaj lañ ak muus. y a des yoo xam ne aujourd'hui ils ont la possibilité d'aider la mairie de Golf Sud. Mm. ils ont les moyens ils ont les relations. Mm-hmm. mais ñooñu dañu toog seen kër xaar nga woo leen mais yow su nekkee amoo des mm-hmm. nga dem fekk leen waxtaan ak ñoom mais ñoom duñ la fekki. looloo daal ñii dañoo rëy. bu nu buggee defar golf noonu oyof. jug dem xool askan bi xool ñoo xam ne mun nañ yàlla may na leen. am na nañu connaissance bu ko defee ñooñu ñu jàpp si ñun ñëpp ñu développer commune mais su nekkee dunoo dunoo vraiment siisu nu comme nu ñu koy waxee toog ne mun nañ vraiment il se trompe gis nga affaire mairie comme nu mu ko waxee affaire gox la. du affaire benn nit. du affaire benn il faut associer il faut associer tout le monde. Mm-hmm. bu ko defee effectivement ñun ñëpp di xàccandoo di dóorandoo. Mm-hmm. bu ko defee pour l'intérêt de la commune mu de non il faut il faut être ouvert il faut aussi les critiques. Mm-hmm. mais loolu nag pour nga def ko il faut nga nekk benn gentleman. nga am benn ouverture pour nga accepter loolu mais su nekkee ku la critiquer rek jàpp na yow ennemi nga moom tamit dans ce cas aussi ça ne dafa jaxasoo complètement on ne sait pas faire la waaw on ne on n'a pas su faire la part des choses entre politique ak gox bi li nga xamante ne mooy population bi li mu soxla ñu def ko si tey yaa ngi wax waa euh, euh, pouvoir bi pouvoir bi pour man. comme ni ko yàdd woon waxee rek je ne pense pas que dañu lay jaxasee euh, population bi dañoo ne dañ doon xëccoo ñoom ñu mujjee am dañuy dañ euh, c'est légitime ñoom ñu seetaan leen pour ñu prouver maintenant fi ma doon waxee que ni peut-être c'est pour man c'est légitime mais ñoom ñoo war a appuyer mairie ñoom ñoo a pense que boo ma soxlawee tey yow yaa ma war a mën a fekk si boo ma soxlawee tey ngir yow mais doon xëccoo ne gox moo la ñor tamit est-ce que yow tamit waroo waroo. mais mais est-ce que xam nga ni aussi ah maire bi fi nekk. gis nañ fi benn bu dul ñaar koo xamante ne bailleur de fonds la wala étranger la bu jógee fële bëgg jàppale gox bi defar terrain et cetera maire bi te ay tànkam tu vois ce que je veux donc ce jamais facile su fekkee yow yaa jël initiative bi parce que maire bi mun na jàpp ni que ni comme ni ma la ko waxee ils sont ils ne savent la part des choses mun na jàpp ni peut-être luuba la peut-être da nga ko bëgg teg benn piège et cetera donc li gën a li gën a nekk euh, li ah, cohérent exactement exactement parce que ils sont toujours donc su li gën a logique euh, xam nga lu mu doon. Mhm. mooy que ni tey maire bi jóg jëm ci ñooñu. ba keroog nag ñooñu naan ko bëgguñu laa jàppale bëgguñu laa kii su ko defee boobaa mën nañu wax que ni pouvoir bi. moom dama lay dama jox benn exemple dama lay jox benn exemple. au niveau de l' école <coughs> excuse au niveau de lecole école primaire Adolphe Diagne dafa am benn association bu ñuy wax 221. Hmm. xam nga dama defoon benn publication. jël état douche publique nu mu mal au niveau de l'école mu nekk état bu extraordinaire bu bu bu doy waar. Hmm. benn association ñoom ñoo jub collecté ay fonds de gauche à droite waat ko mais qu'est-ce qui s'est dafa am si ñoom ñu jógee si mairie ay adjoints la je les connais peut personnellement on s'est croisé là-bas d'ailleurs si école bi. Hmm. ñu ñëw et il il se demandait ñooñu ñan ñoo nekk seen ginnaaw. et ça c'est une hypocrisie. mais ça c'est grave. des jeunes yu jug dem gis des bonnes dem si koñ bi mhm. xool des personnalités qui sont là ñoo xam ne ñoom lu leen lu leen lu leen yitteel mooy seen développement gox ku nekk indi jëróom teg kii dërëm ñaa dërëm ba mu mot benn somme mhm. ñu defar école bi ñuy laaj et il s'est posé la question qui sont derrière ces ces ces gosses la mu nekk loo xam ne nii amoon mon avis vraiment c'est c'était c'est non sa nu ñuy defee politique moo salté pour ñoom yow mënoo am na ku mun. yow mënoo am na ku mun. mais kooku ku mun pour man da nga ko war a encourager. esprit yi ñoo na pessimiste bi. mais mais lépp loo tey gis nga yow boo jugoon defar fii lu luy njëkk ñëw mooy kan moo nekk ci ginnaaw. exact ça veut dire su nekkee nit ki da nga tëlee. non non c'est xam lu tax. parce que ñoom il fonctionne comme sa su nekkee yow tu n'es pas nickel doo gentleman. yow lu doomu aadama def rek yaakaar nga ne y a quelqu'un voilà donc et c'est ce qui est malheureux ici dans dans dans pays là na gars di encourage ñoo xam ne am na nañu initiative yu rafet yi mhm. ñu ñu ñu doxal te bàyyi politique politicien bi teg ko ne li